bul bokkaale ndax bokkaale du ka deewaale buur du ka baal bokkaley nenndum yalla bakko jox leppudi bokkaale fattene nit moom dañ koo sakk di ko sammu xaman bañ bokkaale bur yalla dujum nit nit la du moom bul jaawale rom ak senegaale asaman ki kotee def cib jantam muy takk di leeru nan koy faale jël géejam gi warale ko duniya arjawam ji bul bokkaale ki la doon aar biir bopp nday daafiir kookaa di xadiir bul bokkaale kuy bokkaale lum jëf bon naa yawmal arudi kenn du kafaale alhamdu li rabbi xaaliqina moo ñuy aar kon bul bokkaale loo duniya mooy ki ko jox ko wu melakaan cam bokkaale mooy mooy ki la sàkk nang koy bàkk daw bokkaal rabbun farudun rabbun samadun rabbun wawsun kenn du ka soo koy jubulu mi ngi lay fugulu kon del lu luy bokkaale dama faatoon damay gént yërëm leen yéen ñi may sang bu leen may summi wormal leen samay cër sang leen yirma bu leen may fàtte biir bambeen na ngeen ñaan yàlla jéggal ma da ngeen ma tiim di jullee ma da ngeen ma takk ngir sul ma na ngeen sàmmal ma saa doom ya na ngeen ma dénkaan ya ragal leen yàlla bañ koo jël su ngeen lekkee ko kon tooñ ma fu ngeen jëm yee ñi yoru jat gi te tuuti ñaanal ma su tey doon dem mu day jaamu te bàyyi mooy te bañ caa bu leen may fat te dee leen ñaan bon bon yàlla jéggal ma sama xol ko sàkk def ak leer ne ko jàkk moo di buur yàlla mu màgg ku ka jox xol bi du ràgg soo xalaatee mu bind ci kawaak suuf doo ko bind bari lool làq ci biiram lu di ay mboot ak i xikkam allah mooy borom allah mooy borom masul am morom masul keneen ku dul moom moom rek moo la moom alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala sëriñ Dame Gueye borom dëkk ak mbokk yi ñu fekk yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyób julit ak morom ma lii di tànk yu njëkk ñu mos a dëgg suñu tànk ci dëkk bi jubluwaay bi itam jubluwaay bi yàlla subhaanahu wa taala dénk jullit yëpp la mooy wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan di leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla te bu leen di dimbalante ci bàkkaar ak nooneel yonent bi sallallahu alayhi wa nee ñu misaalum ñi gëm yàlla seen bëgganteeg seen yërëmante seen ñeewante wante dafa mel na wenn yaram bu ca benn cër amee tawat ak mettir rek la des ci yaram wa yëpp daf koy àndale ci tàng ak ñàkk nelaw kon su amee benn dëkk ci dëkk jullit yi ak lu mu sori sori waaye ñu yëg ne am nañu tawat bu xam ne lenn ci jullit yi war nañ ca man dara day nekk warugar ñu jéem ca loola bi ñu déggee ne dëkk bi di kër waa diggéey am nañ jafe-jafe ndox ci seeni doom ndax doomi Sénégal lañ yu nekk fële ca France di faraatu daan seen doole ñoom ñoo dem ba yëg ne li ngay dajale ngir àdduna kese wóorut na nga ciy séddaale cërub àllaaxira cërub àllaaxira nag bokk na ca yañ ca ëpp yaakaar barabu ndox bo xamne ne jullit dañ ci naan waxuma julit yi ñu du julit sama nañ ci naan waaye doom adama lañu rabbi man ca jeriñu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa non lepp lo def ci borom resu toy rek yiw lay doon ñom ñu tuddé seen bop sakku yiw mbooloo na lañ ko tuddé biñu ñëwé ci Sénégal ngir bëgg taxawal loolu euh amna fi mbooloo mu ñu wax mouvement Al pour la culture islamique Euh, man may kenn ca ñooña mm. ñu sàkku la liggéey fii comme ñoom ñu ngi ci biti mm. ñu leen koy taxawul fii mm-hmm. euh, kon bu may tënk dama naan mboolo ma tudd sàkku yiw nekk ci France mm-hmm. ñoom ñooy ñi fas yéene wut yiw ci wutal dëkk bi teen mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom lañ chargé ñu jàppalante ñoom pour superviser liggéey bi mooy mouvement Al Falah kon Babacar Sall mi di wax ak ci tur woowu la ñëwee bëgg-bëgg bi nag ci teen nii lay demee mooy dëkk bu ñu dem danañu bëgg gaskat bu xam ne mën naa taxawee liggéey ba su ko defee ñun bàyyi nañu xel lu teen bi laaj ci matériel ñu jënd ko andi ki nga xam ne moom la def muy si euh, surveillant liggéey bi mooy borom dëkk ci boppam moom moo tawat ne dëkkam dafa soxla ndox ñun indi nañ ko sabab ya nam bëgg teen bi mel moo koy wax ak liggéeykat bi ñu cay déggoo ba baa ñu yegg ci cëppaandaw ga su ko defee liggéeykat bi moom itam dañuy bëgg mu bokk ci sàkku yi wow dugal ca loxoom layotel ko moom itam euh, bu yombalee la muy laaj main d'œuvre ba lay doon ñun ñu góor góorgóorlu am matériel bi borom dëkk taxaw ci surveillance bi amaan na ba teen bay yegg incha allah dana mel nu ñu gërëm lii mooy jubluwaay bi su ko defee euh, la ñuy tànn fañ koy yóbbu itam mooy jàpp ni ñii ñu aajo woo ndox lañ ndax ñu ko manqué lañu lii euh, ci gudd ak gàtt moom mooy tànk yi tànk yi ay jaami yàlla lañ yoo xam ne yiw lañuy wut wutuñ ca xaaj ak seen yaakaar naa mboolem kanam yi nekk fi maa ngi soog a jàkkaarloo ñoom tey waaw <laughs> te moo mu ngoog te moo na dag ñi nga xam ne ñooy génne ci seen loxo ñoom ci seen bopp far teewuñ fa faf kon nag euh, wutug yàlla la yàlla buñ ko ñàkk yàlla buñ ko ñàkk yiw lañ fi bëgg teen bu bari ndox bu baawaan bu xam ne ndox ma cay génne danañ ko dimbandikoo ci jaamu yàlla danañ ko dimbandikoo ci laab ak sell danañ ko ko ci yar njaboot gi ak teete leen ci diina yàlla ah, loolu nekk aw yiw àlaxira lii moom mooy jubluwaay bi lii mooy jubluwaay bi ñu ñaan yàlla yàlla yeggal ko lu ëpp li ñu yaakaaroon asalaamaaleykum yéen mbokk yi aleykum salaam ah sëñ Sall day bu ndox amee kontaan nañu bu ndox amul kontaan nañu yàlla yàlla may ndox ndax yéene ak xol bu rafet mënut a passé lii ndax koo xam ne nii daanaka boo mën a xamoo ko xamula boo koy nuyu da nga ko en sant bi bu la lay nuyu dala sant bi boo ko yéenee yi wutal nii mënatu laa fay sant nañu yàlla sant leen bu baax liit yal ko yàlla àggale kontaan nañu lool keroog bi wax ma wooyee dama ne mbir mi da bu yemoon fi sax neex ndax yéene ji ndax xol bu sedd loo mën a am ci ndox doo mën a am dara ndax ndox boo ko te bo ba ko keroog ñu may woo daa maa ngay bëgg ji sama set dëkk bee ku fi yor saret di def na la mere ndax yóbbaale ma bidong yóbbaale ma bidong fasu du man lépp kon nag boo ngeen idée yi wutoon nii indil nu ko du nu man lu du sant leen gërëm leen yàlla na yàlla mottu leen yéene ji moom dugg na bu amee tuyaaba ji dugg na amul tuyaaba ji dugg na waaw ñooñu kay moom ñaan gi dugg na bu yàgg ñaan gi moom dugg nañu ba yàgg waaw yal na ne yàlla jàppale doom yooyee yal na ne yàlla làq fa yàq agut yal na ne yàlla sàmm yal na yàlla yokk seen wërsëg yokk seenu fan yokk seenu wér waaw waa sàkku yiw yéen ñi nga xam ne yéen yéen seen i ndaw ngeen def diggante si diggante bi fu ngeen yaakaar seen yiw yal na ko fa yàlla paasale fu ngeen seen fu ngeen yaakaar seenu fan yal na ko fa yàlla paasale mm, mm, mm. lépp lu ngeen di yóotu yal na ngeen ci jàpp waaw yal neen yàlla yàq làq fa yàq agut mm-hmm. ñun de kontaan nañu mm-hmm. jërëjëf asalaamualeykum mbooloo mi mm-hmm. ñu ngi leen di sant di leen nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne turam ak santam te Sëñ Sall yow mii nga xam ni yaa fi nekk loxob sàkku yiw gëla nekk sunu doom ya nekk sa France ñu ngi ñaanal ñooñu yal na yàlla yokk seen wér yàlla yokk seen wërsëg yàlla yàggal la fi yow siñ sàll yaa ñii nga àndal yowit ndax ñun jaaxle na nañu jaaxle goo xam ne nii nii ngeen xëy see tey yaag suñu njaboot gee nekk France yàlla dana leen fay ndax am nañu tumuranke ndox gu métti ndax fii ñu fi waroon a taxaw ñëpp wax bari na ndax jigéen ñi waroon nañ fee taxaw wax mais jigéen ñi mën nu fee taxaw ndax rootaani nanu dégg léegi am na fi góor ñu fi waroon a nekk mënuñu fe nekk ndax takk nañu sareete mbaam yi rootaani kon nag bu ngeen ñëwee si ñun ngir yàlla ak doole joojee suñu njaboot ga nekk France di liggéey awale ko si yow sëñ Sall bëggoo si dara lu dul teral julit yi yal na leen yàlla teral yal na leen yàlla sàmm suñu gaskat bii di Modou Ndiaye di doon suñu njaboot ñu jël ko andi ko taxawal ko am nañ si moom yaakaar ju nga xam ni yal na ko yàlla àggaleel yéeneem ndox mi yal nay ndoxum xéewal ñun kat ci saal la xalaat nan ne bis ni ki tey sunu aajo ndox faju na ndax yéene ji dugg na waane nag danaa la xamal ne sunu njaboot googee nekk France mhm. yal na leen yàlla jëme kaw kër waa gépp mhm. dëkk bi nuy wax kër waa diggéey mhm. arrondissement Noto région de Thiès kilifa gi di daam géey di chef du village bi moo ko njabootam ñu ngi leen di sant bu wér ñun de suñu xol sedd na tey mel na waaw gis nga bu ngeen jógee ci lii eh. na ngeen nu dimbali suñu yàlla bee di jàkka ja hmm. danoo néew doole lool nag ku gis nag dan nu la ko jooy dégg nga li ma la wax doom ya xale yeeg ñëpp dëkk bi daal seenub dëkk hmm. jërë ngeen def dara jaaga nee mënuñu si dara dan koo mbaar suñu doom ya nekk France nag yal na leen yàlla yàggal asalaamaaleykum mbokk Kër Wàdd ak mbokk yi jóge Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyuwaale waa sàkku yiw ñi nga xam ne ñoo nekk France di boole seen kastu di ko yónnee ci baay bi mu leen ci jàppale di ko may julliti yàlla yi nga xam ne dañoo soxla ndox ñu leen di sant di leen gërëm euh, man nag gaskatu teen laa limaam lépp ci laa ko jële depuis 85 ba léegi ci laay yëngu ni ngeen ma fii ci kër Wàdd di ñaan yàlla teen yi ñu jaar yàlla na yàlla na teen bii mel noonu ba waa sàkku yiw yi nga xam ne ñoo nekk France di dajale seen seen li ñu am di ko yónnee di wut yiw yàlla jàppale leen ba see seen mbir yokk bu baax a baax a ba njëkk baax nañu leeralaale ne li ñu doon tudd ci financement bi toujours ne waa sàkku yiw ñoom ñoo ko def euh, jaarale ko ci mouvement Al pour mu superviser ko ci teen yi nañu xam ne euh, am na mbooloo bu ñuy wax soute cinq euros ñoom ñooy ñi financé teen bi jaarale ko ci sàkku yiw mouvement alfala taxawul leen ko loolu jar na ci leeralaale ndax bu ñu ne sàkku yu euh, ci mboolem teen yi dañu jàpp ne lépp sàkku yu moo ko def waaye teen bi moom nañu xam ne juste cinq euro ñoom ñoo ko jaarale ci sàkku yu ñu indi ko ci mouvement alfala pour mu superviser leen ko bul bokkaale ndax bokkaale ku ka deewaale buur du ka baal bokkaale yut nenndum yalla bakkojo hule pudi bokkaale fattene nit mom dañ ko sakk di ko sammuhaman bañ bokkaale bur yalla dujum nit nit ladu mom bul jawale rom ak senegale asaman ki kote def cib jantam muy takk di leru nan koy faale jël ngee jëm gi warale ko dunya arjawu am ji bul bokkaale ki la doon aar biir bopp nday daafiir kookaa di xadiir bul bokkaale kuy bokkaale lum jëf bon naa yawmal arudi kenn du kafaale alhamdu li rabbi xaaliqina moo ñuy aar kon bul bokkaale loo gis dunya ki ko jox ko wu melakaan cam bokkaale mooy mooy ki la sàkk faf ne la daw bokkaal rabbun farudun rabbun samadun rabbun wawsun kenn du ka jugulu mi ngi lay fugulu kon del bokkaale